ay ca mbokk yeeg xarit yi teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am ah, say su nekk rek ci altine bu jotee càpp 28 ndax ngeen ànd ak yéen ñu ànd ak yéen ci l' émission des émissions ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen dem nañ nag ba diwaanu Ceskaay yi benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñanal ko suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam wis si réew mi yëpp waa diaspora bi ñu ngi leen di nuyu rawatina nag yéen sénégalais yi nekk ci biir réew mi dañu suivre di ñu bàyyi xel saay su ne ci l' émission des émissions di félicité euh, gaynde yi nga xamante ne nii tey doon nañu jàmmaloo ak ñi nga xamante ni nii ñoo ci waa gàmbi ñoo am contentement bu baax a baax ci gañe bi ñu gañe di leen ñanal nag yàlla nañ ko wéyandee nii ba keroog finaal ba ñu jëlaat coupe bi indi ko ci biir réew mi ay ca ñu daal di koy bàyyi mu nuyoo moom Sanjoogu Meng maa ngi lay ziar. Eh, ma jigéen ñi ngi lay fay di am mbégte ak kontaan de ci yow di dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér waaye di nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ak wér di ko ziyaar wér nuyu bu baax sëriñ xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ko yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Mbacke di mu lax la di nuyu kilifa dina yeewoo ci biir réew mi waaw d'abord di félicité Lions yi waaye di encourager aussi tamit suñu mbokk Gambien yi nga xamante ni tey euh, sama ñaari équipe a doon football. ku ci mel ni Sénégal ak Gambie. parce que après Sénégal Gambie laa supporté. mooy sama sunuy euh, <coughs> mbokk lañ. Mm-hmm. ñu ngi leen di ñaanal seen match yi nga xamante ne bi ñu ngi ñëw yal na leen sunu borom may ndam. amiin waaw loolu dina nekk loo xamante ne bi lu am solo la. Mm-hmm. waaw Gambie ak Sénégal. Euh, benn réew la mm-hmm. donte nag kaf gaa ngi ci internet bi draayante tooñante mbirum doomu bàjjan la mm-hmm. loolu mooy sport mm-hmm. waaye après buñ ci jógee rek romb na waaw di wane ni kaf geeg ree yi vraiment c'est mbir la moo xam mbir mu kii la parce que làkk yi ñuy làkk Sénégal moom la ñuy làkk Gambie moo lay wan ne la benn peuple la waaw donc loolu nekk loo xam ne lu am solo la ñu ngi leen di encourager mhm. te di leen ñaanal match yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci kanam yàlla na leen suñu borom defal ndam macha allah di nuyu sénégalais yëpp nag mhm. waaw di nuyu sénégalais yi aussi diaspora bi mhm. euh, wane nañ seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy euh, ci levée de bi nga xamante ni bi waa Pastef doon nañ ko def loolu day wane ni diaspora bi li wolof naan picc nga ca kaw xel maa nga ca mm, suuf waaw seen réew yi yitteel na lépp aussi tamit wane nañ ko ci seeni i taxawaay ak seeni doxalin. Mhm. yàlla bu sunu borom tas yaakaar. amiin yàlla yaakaar gi euh, law. parce que c'est très important ay nit ñu mobiliser wu. Mhm. Euh, ngir lenn. Mhm. nga xam ni kenn seetut. doone jox ma ma lu ma jëf mais nit ñi ñoom ñooy seet luñ ca def. loolu mbir la moo xamante ne bii yombul. ñu koy gis ci sunu réew Afrique yi. kon bu commencé am nag. loolu wax dëgg fa yàlla mbir la moo xamante ne bi ju jara encouragé la mm-hmm. macha allah macha allah ay ci mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax bépp sénégalais bu nekk bitim réew rek suñu xel mi ngi ci yow ay Aïcha tey nag am nañ fi ñetti sujet yoo xamante ne ni fas yéene nañ ko waxtaanee fas yéene ci ànd ak Alaaji Sanjoogu bi ñu koy dooree nag du lenn lu dul ma Makumba Bey mi dalal rasin Talla euh, fële ca RFM ñu doon werante ci ay kàddu nag jëmale ci doxalinu RTS mi nga xamante ne ma Makumba mi ngi wax euh, Racine Talla que ni RTS euh, moom du invité ku dul waa APR ba coow jib ci léegi dinañ leen ko tegal su ko defee ngeen suivre ko ji indi ci xalaatam waa ji ñuy wax abu Diallo moom itam daanaka rek yëkkati na ay kàddu yoo xamante ne ni fa dëgg yàlla du ay kàdd yi defar jëmale ci Babacar Fall mi nekk fële ca RFM ndax kàddu yi yëkkati woon jëmale ko ci président de la République du Sénégal Macky Sall nee na nag maku euh, Babacar Fall euh, nekkul nit ku am ami teggin léegi daañu leen dëgtal lam ca wax ñu indi ko ji wax ci xalaatam BRT bi ñu doon inauguré démb ci dimanche ji président Macky Sall jaaroon fële ca Guédiawaye fekk fa maire bu Guédiawaye ñu koy wax amet ay dara ñoom ñaar ñëpp ku nekk nag yëkkati nga ay kàddu jëmale ko ci sénégalais yi ay dara nag sàkku na ay mbir yu nga xamante ne ni bëgg na ko jëmale ko ci BRT bi rawatina jeunes yi dëkkee fële ca Guédiawaye léegi léegi ñu xuus door waxtaan bi. ñu dooree ko ak Macoumba Beye comme ni ma leen ko waxee rek dalal na directeur général bu RTS ñu koy wax Racine moom nag kàddu yi mu yëkkati jëmale ci ba jur werante ci seen diggante ñoom ñaar lu lenn lu dul rek doxalin bi RTS di doxalee te sénégalais yi nemmeeku ko ñu dem seetaan ñu ko dellusiwaat. ñun APR doo ko gis ci suñu ay ondes. wala non non non mais pas tous les jours ñoom ñooy jàll ci télé bi tous les dimanches seen émission yëpp waa APR fay jar ak benn. mais je te dis. mais c'est totalement vrai benn opposant dafa jàll. APR mais mais ñuy jàll ci seen émission yi kon ñan la. de la république. waaw mais ñooy ñooy APR président faites très attention. léegi euh, question bi ma bëggoon ñu daaneele mooy ci wàllu syndicaliste yi ndax euh, bëri na ñuy. non non boobu la ñu nekk man syndicaliste du ma ci wax. j'en ah. parle avec les syndicalistes à l'intérieur de la hmm. ma ci loolu. d'accord parce que laaj bi moo doonoon ku déggoowul ak yow rek ñoo ko génn ci waaw dinaa la ko laaj nga xool noo ciy tontu rek dinaa la ko laaj franchement doo ma ko laaj waaw ku jubawut ak yow rek du liggéey merci beaucoup jërëjëf ay ci jërëjëf Modou Diouf ak Abdou Top euh, ci ni ngeen ko doxalee macha allah alaaji dégg nga euh, coow li jëm ci diggante Makumba ak euh, directeur bi géré RTS laaj na ko ci APR ni ñëwee ci RTS rawatina nag syndicaliste yi nekk foofu ci biir tele ba te saay su nekk rek ñuy dégg ñuy ñaxtu moom nag nee na du tontu ci yooyu la laaj. Euh, Macoumba li mu laaj euh, Racine. Euh, lenn la loo xamante ni bu invité directeur RTS jàpp naa ne question bi bokk na ci question boo xamante ni bi war nañ ko ko laaj parce que loolu mooy li nit ñi gis gis nañ ni APR dañoo aakimoo télé ba xam nga Racine moom mi ñu fal. moom gisul jàngoro ji waaw jàpp na ni loolu di jàngoro ji xam nga APR dañoo bari peut-être que ni moom am nañu ba dañoo bari ci gouvernement poste yeeg et cetera xam nga moom peut mu ngi dajeeg koo xam ni da koy wax ne ko lu tax doo ñu invité parce que APR ku ci nekk dangay dem sa cëggal guy maanaam ku ci nekk jàppul ni euh, APR ngay liggéeyal moom li mu wax ne moom lañ koy reproché maanaam APR dafa am ñoo xamante ni. ñëpp ànduñu rek ku ci nekk da ngay liggéeyal sa bopp maanaam ku ci nekk da ngaa bëgg sa bopp fés xamul ni ñooñu di ko wax naan ko jàlluñu dañuy ŋàññ seen beneen moroomu APR boo xam ni mu ngi jàll moom nag day jàpp ni waa télé ba dañoo invité wut APR te la plupart ñii li tax mu garaaw mooy dañ leen di dañ leen di dénk mbir euh, daanaka duñu seetaan mbir ma ah loolu lu garaaw la xam nga si si Lamine lu daan daw wal fa jëri xam na ko ak heure bu mu mën a ne day da doon suivre télé bi di bàyyi xel tele bi tele bi lu fi daw mu xam ko léeg-léeg sax ñu teg clip mu ne clip bi dindi leen ko parce que clip yoo xamante ni bi euh, paren saay du bokk ak image wu réew mi mm. mu ne lii dindi leen ko bu gars yi defaan même erreur bu ndaw lu mu ndaw ndaw ñoom Modou Diouf a ngi nii day woote son bi bu manqué maanaam da doon surveiller yëf yi di xool nan la yëf yi di doxee ñii nag dañ leen di dénk mbir te amuñu jot gi moo tax ñoom yaa leen gën a xam la xew ca kër ga. waaw nan leen jotam nag. non non c'est euh, bu ñu leen denkee mbir maanaam tur dénk nañ leen ko rek la maanaam dañ leen koy jox ñu dénkaane ko keneen daanaka. am na lu bari loo xamante ni bii ma nga fay daw sax yëgut ni yëf yi di demee mën na bañ a yëg ni yëf yi di demee mhm. comprendre parce que ñi ngi ci yeneen activité yoo xamante ni bii ay activité seeni mbiri bopp laak mbiri politique mhm. mais du ñu nekk ci mbir yi moo tax li ñu leen dénk du dox parce que Racine dañ ko jël rek ci comme RTS parce que ñàkk doxu RTS mooy image u yeneen yëf yëpp parce que RTS rek ñoom ngay gis mun ñu taw ba taa ñu ne réew mi ndo après ah, le pluie c'est le beau loolu RTS donc moo ko man ta bi ñuy génn dañoo xuus comprendre nga c'est que lu mel noonu moo tax sax war a xam ne ni ma ni rond-point RTS sax day wala <laughs> mais loolu mooy li nga xamante ne bi mooy seen problème ñoom ñii nga xamante ne bi ñoom ñooy ñoom euh, Racine Talla loolu mooy seen problème léegi nag waa xam nga jafe-jafe waa xam nga jafe-jafe ja nga xamante ne bi moom lañ nga Euh, mu lànk ne du ca wax ba mu ca waxul rek léegi moom moo jox nit ñi ñu imaginer lan moo tax nanguwu cee wax mm-hmm. parce que ñàkk cee bañ a wax rek mooy day firndeel ni amul argument ngir wax ci mm-hmm. parce que bu fekkente ne bi amoon nga argument pour wax defe naa ne dangay bëgg bu jafe-jafe amee ñu di la ko wax mm-hmm. da ngay am kii ngir expliquer parce que problème yi nga xamante ni moom la ko ma Macoumba di wax dafa génn ci RTS ba nekk ci mbedd bi bu demee ba nekk ci mbedd mi nag ba mu kumba nag léegi nag di wax ci problème boobu moom war na cee mën a tontu ci mbedd mi mais peut-être amul élément yoo xamante ni bi moom lay convaincre askan wi boo amul crément élément nag pour convaincre askan wi li ngay mën a wax rek mooy euh, duma ci wax waaw duma ci wax boobu nag nit ñi liñ ci war a déggee rek mooy amoo loo ci wax parce que le fait que waxoo ci rek mooy wane ni yëf yi moom amut dara loo ci wax donc nag boo ci amut loo wax nag tu préfères noppi mais en tout cas li am solo mooy mm. euh, bu dee dañ lay dénk mbir lu ci mel ni RTS ñu dénk la ko ngal la boo ko du tal bàyyi ko keneen koo xam ni dina ko tal mm-hmm. parce que ci kaw keneen tal ko ne ci di liggéey peut-être mën nay génne loo xam ni euh, mën na intéresser nit ñi mm-hmm. mais ñu dénk la mbir taloo ko seetaanoo ko xamoo la fa xew comprendre ga pareen saay li yenn yi dañ la koy nettali rek ngay sanctionné loolu rek mooy liy faral di am way laa ñu partagé la vidéo ngay soog a gis ni télé bi ndekete lii am na fi hmm. donc il faut di suivre yëf yi di xam yëf yi fu mu toll ak yooyu loolu c'est très important te bàyyi ñu nome la ci mbir rek nga teg ay nit ñoo xamante ni bi duñu def rek lu dul di la xalamal ak di la wax wax ju neex nga yaakaar ni yëf yaa ngi dox hmm. booba nga tàmbalee suux te yëgoo ko hmm. waaw leneen nag euh, lu wuteeg loolu euh, Babacar Fall kàddu yi mu yëkkati woon jëmale ko ci président de la République du Sénégal ginnaaw ba mu génnee woon moom itam wax ci euh, ñi nga xamante ne nii ñooy def revue de presse fii ci biir réew mi moom abu jàll nag dañ kaa daal di dalal ci benn antenne mu yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci ki nga xamante ne ni moom moo di Babacar Fall ñu dem déglu ko dellusiwaat. mais Babacar Fall nag. réew mi bu doon démocratie dëgg la ñu nekk ci état ak autorité warul fanaan article quatre daf ko war a dal parce que Babacar Fall deful démocratie deful liberté de la presse indiscipline la def. Ah, mooy Babacar Fall dafa réew yaruwul. Ah, ah, parce que xam lu tax. mooy li mu def du chronique. Babacar li mu def du chronique. dafa ñëw ne dafay taasal gor. dafa ñëw ne day uñi sutura kilifa. non lii moom chronique la nag. li mu def tuddum chronique chronique lu ci indi famille. chronique lu ci indi mais malhonnêteté intellectuelle Babacar Fall fa lay commencé. <laughs> ayca mi ngi noonu alaaji déglu nga kàddu yi nga xam ne Abou Diallo wax na ko mu ni Babacar Fall li muy def du chronique te aussi heure bi waroon na fekk yoon wóolu ko ndaxte kàddu yi mu yëkkati nit ku amul yar rek moom moo koy doxalee. waaw mais moom li Babacar wax moom loolu la wax de wala dégluwoo ko. <laughs> lan la wax. moom euh, bu fekkente ni euh, da ne Babacar Fall lan la wax Babacar Fall moom daf ne. Mm-hmm. moom mi mm-hmm. daf ne réew mi. Mm-hmm. bu doon démocratie fii dox. Babacar dañ ko war a wóolu. kon moom nangu na ni démocratie doxut. te Babacar chronique am daf ko tënk ci. réew mi du réew. ñoo bokk li ñuy wax de. moom mi ñëw ngir défendre. mook Babacar Fall ñoo bokk li ñu wax exactement. voilà jikko que xam na ko puisque dafa moom daa xamut moo tax ma ne la saa li gën a garaaw mooy. Mm-hmm. da ngay ñëw ne da ngay ñëw. pour yedd di sànq nit mm-hmm. fekk na yow. yaa ngi sànq yaa ngi moom a bokk même pañ boo xam ni da ngeen mm-hmm. parce que boo ñëwee ne réew mi bu doon démocratie moo fi nekk. Babacar Fall kon nangu nga ni réew mi démocratie nekku fi moom d'abord nangu na loolu. bi muy wax. ci loolu la wax maanaam wane ni réew mi nekkuñ ci république bu na parce que di jël ay mbir di ko tuddee sa bopp ak ñu koy tuddee say goroog di ko tuddee say kii. loolu la Babacar Fall. ŋaññi famille bi. waaw famille bi ñee ñoo ko. loolu la Babacar Fall ŋaññi nga ñëw dëggal Babacar Fall li mu wax. ba noppi nag mel ni ñi ñuy jàpp ni da ngaa xarab Babacar Fall moom yëgut sax ni moom mi ngi dëggal li Babacar Fall wax hmm. loolu nag dafa am lu muy wane rek. mooy ñàkk xamam xam nga moom mii sax man damaa xamul euh, moom mooy kan d'abord ak lan la représenté moom. Ah, xam nga tey bu ñu nee non tey bu ñu nee Sa bu <laughs> ñu nee Sa Ndiogou de comédien la bu ñu nee Babacar Fall ñu ne ah, Babacar Fall de journaliste la mais moom lan la moom moom. chroniqueur la. fan lu muy chronique fan la fan la génne. dama fan la génne wala dafa jékki-jékki rek euh, nan la yëf yi demee quoi man ay mbiram man ay mbiram jaaxal dama waaw léegi nag par contre nag gis nga réew mm-hmm. ma jigéen dafa am yu am solo luy doxal réew réew dafa am loo xamante ni dafa am ñoo xamante ni faw ay nit di leen wax parce que wax yooyu dafa am lu muy defar mm-hmm. tey jii man dama jàpp ni ñu bari ñi jege président de la république ñooy noonam yi gën a mag ci ni nga xamante ni bii noonu la président di doxale parce que am na lu ñuy xam te xamu ko mm-hmm. te jàpp nañ ñi buñ ko ko xamalee mm-hmm. da leen di mere wala da mën na leen a indil ay problème mm-hmm. et pourtant xamuñ ñi buñ ko ko xamal ba mu xam ni ñii kat dëgg dong lañ koy wax peut-être sax mën na am neneen noo xamante ni bii noonu lay doxalee parce que gis nga yi ñi lay wër entourage ñu ci bari mën nañ lay yàqal lu bare bare bare bari parce que bu fekkente ne bi waxatuñu la dëgg rek boo deful ndànk da ngay defee dem ba defee ne yow doonoo nit kuy juum mhm. te fekk ne nit li Youssou Ndour mooy del mag day juum ndaw day juum mhm. kilifa day juum surgaam day juum mhm. mais nag ki nga xamante ni kii tey moom mooy euh, am leneen mooy ki nga xam ni bu juumee ngay nangu ne ñu wax ko ne ko juum nga mu nangu ni juum na kooku ci kaw rek la jëm parce que am na kilifa ku ko daan wax ne bu ma juumee ñëpp juum parce que damay waxtaan ak nit ñi kon boo waxtaanee nit ñi nit ñi di leen jox say xalaat bu fekkente ni bi da nga da nga juum du yow yaa juum mais da ngay na juum parce que da nga ci ànd ak ay nit mais bu fekkente bi yow dong yaay jël ay décision di dogal ak a doxalee nen ba nit ñi adopté wu sa vision boobu nga xamante ni bi kenn jéemut a xalaat sax ngir wax la lu la naqari mais lu la neex képp lañ lay wax ëllëg si booy dugg ci paxit kenn du la ko wax parce que nit ñi mën nañ lay gis ngay dugg ci kàmb gi mais kenn du am sañ-sañu taxaw di la ko wax jàpp naa ni li Babacar Fall wax lu ñu bari doon wax la parce que am na loo xam ni dafa jekkul ci gis-gis ñu ne ma jigéen kat jëkkër ja jël na ko moom la tuddee lii moom la def lii jël na baw kii jël na lii tuddee nañ ko lii def nañ ko lii comprendre loolu dafa jekkut dafa am yoo xamante ne bi maanaam dafa jekkut ci gis-gis te loolu defe naa ni président bàyyi woon ba wàcc nit ñi yëkk ni ah ñii de mérité nañ ñu tuddee leen lii bu boobaa lay gën a safe parce que pareen saa yi am na yoo xam ni li wolof naa ndënd du tëgg boppam loolu moo cay feeñ bàyyi nit ñi daate apprécier li nga xam ni moom nga def seet la nga yellool ñu jox la ko parce que moom moo dem ba seet ni Ablaye Wade yelloo na kat pour ñu am ab mandarga buñ ko kiyee mu ne tuddee ne ko Ablaye Wade xooloon na ni ba gis ni Blaise Diagne am na lu mu yelloo mu tuddee ko Abdou Diouf demoon na ba gis ni Senghor am na lu mu yelloo mu tuddee ko stade Léopold Sédar Senghor et cetera et cetera loolu moo doonoon li gën waaye nga nekk di doxal di tuddee mbir yi sa bopp wala ñu la koy tuddee ñoo ñu nga xam ñoo la koy tuddee ñëpp dañuy jàpp ni rek ay nit lañ yoo xamante ni bi defuñu lu dul di la si te loolu vraiment njëkkoon naa jël benn décision mais après mu nangu ko loolu jaaxal parce que bi ko Mansour Faye bëggee tuddee ca Ndar njëkkoon naa lànk te loolu mooy li gën waaye ba mu demee ba nangu ko dootul rafet. ñu ne ko sab goroo la tuddee lii loolu mooy li nga xamante ne bii mooy li ne. Mhm. Mhm. jërëjëf Mbengue euh, président Macky Sall nag démb ci dimanche bi ñu ngi doon inauguré li nga xamante ne ni moo di bus rapide transit bi nekk fii ci diwaanu Ndakaaru moom nag euh, ca cérémonie ba daanaka rek yëkkati na fa ay kàddu maire Guédiawaye itam ay Aïdara am ay kàddu yu mu fa yëkkati ñu dem xool yu ko dellusi ci turu géejawaay gépp ñu sant la gërëm la ci réalisation wu BRT bi nga xam ne jaar na géejawaay fii la déparé te fii tamit la terminus am bi nekk gën naa jekkal nag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 le bonheur sur les visages, la fierté des populations, qu'elles soient ménagères, Je procédais à Guédiawaï lancement des travaux du projet bus rapide transit. Je suis d'accord avec Stéphane Volant qu'on le débaptiser bus rapide de la Teranga. Le premier du genre dans notre pays, mais également en du TER le 27 décembre 2021, nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif le Sénégal moderne. Le PRT s'inscrit dans une stratégie de prise en charge globale du transport à Dakar et sa banlieue par une mobilité organisée, régulière, sécurisée et confortable. et nous allons donc voir une organisation nouvelle du transport. Mais je voudrais confier la sécurité du BRT aux populations de Dakar. Elles seront les meilleures gardiennes puisque ce BRT est le vôtre. N'acceptez pas qu'il soit détruit. C'est à cela que je vous convie, mes chers compatriotes, parce qu'un pays se construit avec des bâtisseurs, non des casseurs. jërëjëf euh, Modou Diouf alaaji dégg nga kàddu yi nga xamante ne nii son excellence yëkkati na ko nee na nag euh, BRT bi dara taxu ko jóg lu dul rek yombal dem beeg dikk bi fii ci ndakaaru ñi nga xam ne ñi ngi xëy di doxi seeni ay activité nee na itam dénk na ko sénégalais yi nga xamante ne nii ñoom ñoo moom mbir mi la te bu ñu nangu mukk ñu nekk mu nekk loo xamante ne nii bu ëllëgee bu nit meree fële jóge fële daal di koy yàqate ba mu yàqu yaxeet parce que alalu askan wi la Ahmed Aïdara moom itamit daal di rafetlu rafetlu li nga xamante ni nii moo di BRT bi jaar Géejawaay parce que nee na yokku na xar kanam euh, ak taaral euh, ville bi di Géejawaay naka nga jàngatee li ni mel. waaw xam nga damay njëkkee président ci li nga xamante ni euh, inauguré na ko démb muy BRT bi mu nekk loo xamante ni lu am solo la. Mm-hmm. waaye inauguré dafa nekk loo xam ni. Eh, boo koy def jàpp naa ni bés la boo xamante ni bésu feet la ci moom ci loo xam ni sumboon na ko sunu boroom def mu yeggale ko am na ñu bari ñoo xam ne sumb nañ te mën nañoo bañ a yeggale. yàlla def na mu sumb ko. Mm-hmm. yeggale ko defe naa ne Abdoulaye Wade moo sumboon aéroport Blaise Diagne waaye moom mooy ki ko yeggale. Mm-hmm. waaye moom yàlla dimbal na ko mu sumb ko yeggale ko mais ci kaw mu wax ni réew dañ koy dañuy koy jox ñuy tabax waaye bu ñu ko jox ñuy yàq ñuy yàq question day ñëw lan moo tax ñuy yàq parce que bu fekkente ni da nga ne duñ ko jox kuy yàq rek ki yàq lan moo tax mu jékki-jékki di yàq question bi foofu la ne parce que bu fekkante ni résoudre problème boobu rek mën nga tuddee sax ne nit ki day yàq mais fekk ne li ngay tudd ne moo koy yàq peut-être yow yaa ko yàq. waaw parce que d'habitude li daan faral di indi yàq-yàq yooyu mooy manifestation dafa war a am ñu aaye leen ko walla mm-hmm. ñu jël Ousmane Sonko bëgg ko teg noo xamante ne nii. lu yenuwul maanaam rek ci yàq ak kii yoog yooyu bañ a dugg ci benn benn tur wala mm-hmm. lenn mm-hmm. parce que dafa wax yàq rek nañ mm-hmm. yem ci li nga xamante ne bi mooy yàq xam nga yàq dafa bari ay façon dafa bari ay mbir yoo xamante ne bi mën na indi ay nit nekk en colère def dara mais question bi mooy def jëf gi bu xasee ba am ba pare lan moo déclenché mbir mi am loolu ndax yow da nga cee am cër wala amoo ci cër parce que bu fekkee ne yaa ngi wax aisément rek dafa mel ni yow amoo ci cër te pourtant yow lañ dénk réew mi mm-hmm. ñiy yàq ñoo doon taxaw di apprécier mbir mi xëy xëy mer toj ko dafa mel ni rek la naar ba defoon di julli ab xale ñëw ruux ko mu may ko ñaar fukki dërëm xale ba gis keneen di julli mu ñëw ruuxu kooku rendi ko ñu ne kan moo ko rey ki maye ñaar fukk ñu ne ki ko may ñaar fukk mooy ki ko rey pare na saa yi nit mën na def dara te fekk ne du moom moo ko def mais yow yaay ki ko def mais nag il faut nga xoolaat yëf yi ba pare donc loolu mooy li nga xamante ne bii euh, moom la ñuy wax parce que tey jii li ngay gis tey ñu di ko yàq mais ku koy yàq lan la bëgg a defar xam président li muy bàkkoo nii tey muy tabax def terre def kii loolu la Ablaye Wade doon bàkkoo bi mu ñëwee moom jaayuñu loolu daf ñu jaay ne état de droit moom la ñuy indil mm-hmm. sénégalais yi daw voteel ko parce que ci jamono jooju injustice yi toll woon na foo xamante ni doy na waat mm-hmm. ba moom mii mu sibiir ci ay mbir mm-hmm. yoo xamante ni bii tegoon nañ ko ci ay fitna ci loo xam ne jaaduwut sénégalais yi mer daal di dem jàppale ko jël ko tabb ko ci bopp réew mi mu digoon leen ne leen dana fexe ba yoon tegu ci yoon te du protéger benn doomu aadama mm-hmm. fukki at ak ñaar après mm-hmm. fan la toll ci lim ñu digoon paaka mu ñëw rek indi laatal ñu ay tabax parce que ay tabax la rek ay defar BRT tabax fii def lii defar ay route loolu la ab Ablaye Wade nekkee woon moo ko njëkkoon a tàmbali tey bu ñëwaatee ñu nekkaat foofu dafa mel ni bougé wuñu centimètre dafa mel ni fa ñu nekkoon démb fa lañ jëm fan lañ toll ci lim ñu waxoon nañu dana ci taxaw muy wàll yoon tey jii defe naa la gën a sëngéem këñ ci jamono yi lay Wade mm. loolu lenn la leneen li gis nga Ahmed Aidara bon def na discours comme ni ñu bari jàppee ni nii la ko war a mën a defee waaye man damay wax déedéet. Ah. parce que gis nga ma jigéen. histoire dañ koy marqué. les grands hommes dañuy marqué histoire Ahmed dafa amoon occasion pour marquer histoire ci wàllu politique marqué histoire parce que dafa amoon. bés bi ah. gis nga dañu joué benn théâtre bu ñuy wax Gelwaar Thierno Ndiaye doos interpréter rôle lu Gelwaar. mooy bi muy wax baaraam buñ joxoñ mu ne kooku jox baaraam benn baaraam buñ tàndal joxoñ la mu ne waaye juróomi baaraam kooku ñaan la mais gis nga loolu théâtre la mais dafa dem ba génn cadre u théâtre gis nga Kéba mbay bi muy wax président les sénégalais ont fatigué discours boobu bokk na ci li nga xam ne moom la sénégalais yëpp jàpp pourtant jamono jooju loolu muy wax mënoon nañu bañ a wax ni ci maman bi la Ahmed lii nga xamante ni bi moom la bind ndax dëgg-dëgg looloo ne ci xolam waroon na wax nag li ci xolam te bañ ñoo wax li ci kayit yi gis nga bu boobaa doon na marqué histoire Sénégal dootu ko fàtte te man jàpp naa ni loolu mooy kii mais bu ñu la gëmloo rek ne la politique la président ñëw na yaa ko war a dalal nii nga war a waxee hmm. déedéet wax ko li ci sa xol hmm. ngir président xam nit ñi dina am ñu wax ne opposant la kërëb kërëb mais président dina ko yóbbaale man dama toog démb ma seetaan leen ma ne waaye ak maa amoon waroon a am occasion jàkkaarloog président nii bu ma jàkkaarloo woon ak moom noonu hmm. danaa ko wax leneen ginnaaw bu ma ko gërëmee ci BRT bi ba pare waaye dinaa ko wax li nga xamante ne bi sénégalais yu bari bëgg nañ ko koo dégtal mhm. te loolu c'est très important parfois nit ñi il faut que ñu génn ci rôle yi ñu leen di zéloo wax ci li nga xamante ni bi dëgg-dëgg moo ne ci ñoom wax li nga xam ne bi dëgg-dëgg moo ne ci xolu sénégalais yi mhm. parce que loolu mooy li am solo mais lii ñuy def nii yëpp après folklore kese la da ngay wax li ngay wax ba noppi dem mu nekk acteur bu doon jouer film loolu kese la du mhm. leneen voilà d'accord Aïcha mi ngi noonu ñu bàyyi la am ma jigéen ñi ngi am mbégte ak kontaan di nuyu sénégalais yëpp di rafetlu bu baax a baax di ñaanal sénégalais yëpp. Mm-hmm. yal na yàlla mottali. amin incha allah incha allah rabbi jërëjëf euh, alaaji ñu ngi la jaajëfal bu baax a baax euh, ci kàddu yu rafet yi macha allah ay ca ñu gërëm ko nag moom moo du Diouf Abdou Top ak euh, Abdoulaye jàlloo jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel jamono ji di leen di jox dig daje nag beneen altine ci l'émission des émissions.